gars yi di dem Europe ñii di dem ay Suisse ay ay man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël Iran Irak teere Tanzanie. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk yi euh, ñu dellu si dugg tuuti wax leen leen bokk ci xibaar yi jógee ci euh, diggante Yaman ak Iran ak américain yi. Euh, xam ngeen euh, dañuy toog lu yàgg dinañ gis sax ay xibaar naam waaye dañuy toog yàgg di déglu ba xam fu wànneen di mujj gët yëmu dal ba xam na <laughs> ñu door a wax waaye euh, mbir mi xaw naa doy waar de mbir mi xaw naa doy waar mi ngi gën a mi ngi gën a mi ngi gën a lëj daal ndax li tax muy gën a lëj moo di ne démb ci 31 ji dafa mel ke ni yaman dafa xawoon na songaal dafa xawoon a jokkaas euh, benn bato boo xam ne euh, bato bu doon jàll la euh, ñu ne ko doo dem Israël te dangay taxaw ñu wax ak yow nga tontu ñu ba xam fi nga jëm ñu door laa bàyyi sa direction nga dem gaa yi ndekete bato boobu dañoo amoon ay gànnaay yu ñu yore bu ñu yoree gàmm gànnaay yooyu nag bu ñu ko yoree itam dañ ko yoroon ci biir bato bi ngir ne ku ñu song ñun daanul défendre suñu bopp léegi nag yaman Songguli leen bi yaman Songgi nag legi fetal ci ñoom Amérique daal di riposter moom ca bato ba mu nekk ba labal ñetti maanaam loo yaman rey fukki nit yaman te yaman moom bato beli la doon songi ah xam naa dal daal xaw naa doy waar ndax ndax Iran daal di ne potox lu dembu indi ñaari bato de guerre ñëw ba ci kanam eh, ci wetu Eisenhower mi nga xam ne mooy bato bu magu bu américain bi naan bato bu ànd ak ay bombe atomique la mu taxaw dak yore ñaari bato de guerre am foofa noona waaye tey jii ci 9h heure eh, ci ca ca Yaman a ah, américain yi dóor nañ leen benn missile ci seen bato ba am fa ay yàqu yu bëri yu fa am attaque boobu nag bi mu amee ah ñi ne Yaman la Yaman ne moom defu ko weddi na ko ba tëdd ci naaj ah ñii nag nee nañu li tax moo weddi ko mooy su ne man la kon Amérique day am droit dem song ko ca biir dëkkam waaye bu fekkee ni ci biir géej gi la boo la missile yi dalee ci gaal gi ah, te gars yi xamuñu fu leen gaa yi jaar ba dóor leen missile yi missile yi bu bu yeman lànk ba tëdd ca naaj ba ah, ne song song du man ah, maanaam bu même bu ko Amérique songee ca dëkkam itam du maanaam du ko song ci yoon ndax amagul preuve ne eh, yamaniye yi ñoo leen dóor missile waaye missile bi moom yàlla def na jot naa dal ci gaalu américain yi moom wax dëgg yàlla neexut a dégg nag ndax léegi da ngay dégg yoo xam ne da koy teelu di ko teeluwaat di ko teelu di ko teeluwaat waaye daal doy na war daal missile daal balistique nee na ca gaalu américain gi til loolu moom mu ne su ko weddi am na yàq yu bari yu fa nekk ah bañ naan sax bu moytuwulee gaale Angleterre ñooy koy ripostel ah gaal gu ñu dóor geneen di la ripostel kon dóor ya xaw na laa xaw na laa laati ah ah Iran nag moom nee na yoonam nekku ci loolu nee na moom da daan jaar fii di dem di garde géej gi di dem di daana dem fii ba Amérique latino américain ak ay gaali geeram moom day doxantu jaar foofu rek di dem waaye nag ñëw na foofu fekk fi coow li démb ah mu taxaw seetaan waaye nag eh, moom nekku ci ah li gën a jaaxle nag mooy dafa sëriwul bateau américain yi moom ñaari bateau mi sëriwuñu bateau américain yi bu doon moom moo leen dóor missile te te missile bi jógee ci moom kon gars yi danañ ko gis yaman it waat na wàcc ne moom sànniwul misil te bombardé nañ gaalu américain yi daal am na fa ah, ah kooku nag doy na kiimaan ah, gaal gu mag gi nga xam ne itam moo desoon ca Liban te doon gaalu américain ah gaal googu itam wax dëgg yàlla ah nee nañ daal day delloo Amérique waajaati ak ah, ay ay préparation yi tax muy dem daal lañ wax ñii ne mais ministre défense su Amérique ak ministre défense Israël ñoo jotee coowaloo ah ñii ne ñii wax leen nii ñii wax nee ndax da da leen da leen waxoon ne bu leen bombardé ci population bi bàyyi leen nit ñi nekk seen jàmm di kenn xeex ci bi àll bi yaatu na ak ah, gars yi defuñu ko lu may di bombardé population bi gars yi dem nañ ba seen xol daal ndax newoon nañ ko bu premier jotee guerre bi day war a jeex xëqante nañ daal ñoom ñaar bu ñu xëqantee ñoom ñaar nag ah bateau américain bi nekkoon ci côté Liban bi daal moom ma nga kott yoonu ma nga kott yoonu Amérique di dem ah ñii nag nee nañ Amérique dafay ragal affaire bi romb ëpp ay loxo ab guerre am mu foofu nag nekk mondial a ah, ñii ne nañu déedéet loolu du am waaye daal xam naa ne mbir mi daal a ngoog xibaar yi gàttal daal mooy démb moom ah, am na bato bu fa jaar waaye man ne ko doo fi jaar mu ne farfos dinaa fi jaar yore ay fetalam di ñoom yaman riposte ca bato booba americain yi riposte ci yaman ba suuxal seen ñetti loo ca rey seen fukki soldaari yi yaman loolu démb woon tey ci neuf yi ngoon gi nag ne maanaam neuf heures yi yaman tey jii daal kooku nu tuddee ko missile mu sant balistique daal xaw ma ba xaw ma tukkaloor na xaw ma nag saraxule waaye balistique daal la la missile missile boobu sant waaye jot naa jot nañu ko dóor ngàdd daal fi mu nekk nii am ñu ngi naan daal fayu gi moom fayu moom bu dee yaman ko def dina am bu ko yaman defut itam dina am waaye nag mën naa am nee nañ bu muy tulli gaalug Angleterre ga mooy mooy moo moo moo nar a song loolu daal moo fi nekk ah yaman nag ma ngi ci wet gi iradé nga fa ak ñaari bato de guerre noo ne nag moom yoonam nekku ci bu ci kenn tudd ah kenn ko ci it nag xaw ma nu mu demee noonu incha allah fii ak suba bu fekkee dajale nañ xibaar yëpp ba mu ba indi yaatu yi dinañ leen ko jox waaye song bi moom am na te bateau américain moom dóor nañ ci missile balistique ah, tey ci 9 ca yaman ca ca ca babul mandab amaa nag bu fekkente ne Israël ak Hamas moom ba léegi mbett mu ñàkk ndax ah, démb moom Israël sax am na ay bataillon yu mu xëccoon di ko delloo ji ndax nee na moom euh, soldats yi muy yóbbu foofu di xeex daf ci am soldats yoo xam ne ay étudiants universitaires lañ te le premier ci weer wi nu nekk muy tey ci la école Israël war a tijji kon dana retiré ñooñu ñu dem. mu ne nag léegi moom bu retiré ñooñu ba mu dem nag ñu ne nag mu ne xeex bi du jeex fii ak juróom a ah, euh, xeex bi du jeex fii ak juróom-benni weer waaye nag ne daal aérien lay xeexee a ah, Ubayda nag nee na xeex bi jeex na ndax daw nga da ngaa ne da daw waaye daw nga te yow xamoon nga ne boo ñëwee fii itam da nga daw ah ñu ngi nekk di riix riix la loolu démb nag bi nga xamee ne zéro heure jot na ba israéliens yi di déclasser seen seen seen seen seen seen petaar yi. di saraxolee ka mbiib gaa yi saraxol waale ca biir booba nag waaw man daal xaw ma fukk ak juróom-ñetti misir lañ sànni xaw ma ñaar fukki misir ak benn lañ sànni gaa yi jot jot nañ càkkar daal waaye juróom-ñeent moom juróom-ñeenti missile balistique yoo gudd borom xeluwu sor yi moom te mbax nañ ko ci biir Tel Aviv xaw ma nag ca étage la daal xaw ma gisoon naa fa daal ay kër yu saxar ak oto yi fa feeñ daa ak oto ki daal gisoon naa ko fa waaye <laughs> loolu loolu amoon na fa démb waxuma leen ko waaye amoon na fa démb loolu moom biir péng la waaw gars yi moom démb dañoo déclassé lu man vingt nangam missile yoo xam ne yëpp Tel Aviv lañ ko la lañ ko dàkk te li gën a doy waar mooy simaalu Gaza bi ñu waxoon ne foofu nooy na ba waa Israël dem summi seen i yére di fii ca biir géej gaa ak sëmb ca ca tefes ga foofa nag ci heure minuit fa la missile ya déparé fa Israël toog ne fii nooy na foofa la missile ya déparé te nag ah xaw ma daal yëpp dal na am déet waaye juróom-ñeenti misil yi moom wér na moom dal na te gis naa ay kër yi tàkk foofu ay oto yu fay yu fay yu fay tàkk daal waaye terewul daal Israël nee na moom wax dëgg yàlla daal élèves yooyu daal daa bëgg ñu delluwaat ndax ay technologie la ñuy jàng ak ay siraa am mbéy ay te ay affaire miin ak industrie yooyu la ñuy jàng te ñoom daal dañuy delluwaat jàngi daal. waaw loolu daal la wax nee na dañuy delluwaat jàngite kon dañuy xaw a niw doole ci suuf kon dañuy bàyyi suuf si di dem ci aérien bi di de loolu daal la naatiyaan yawo nettali xaw ma nag lim nettali dëgg la am déet waaye loolu it am na foofa démb incha allah bu subaa danañ ñëw yaatal xam naa suñu abdu suñu abdu dana dana seex daf may fonto waaye déedéet euh, bis bu ma dikkee dinaa la dinaa la indi lu lu ne gàññe waaye nag waaye nag damay toog ba gis lu jar a wax li jar a wax daal mooy gaalu yi daal moom missile boobu sant balistique daal daaj nañ ko ca moom ba daay ga ne ah, nee nañ nag ah, Angleterre yi fay bu dee ku ñu dóor mbër mu ñu dóor mbër chef de écurie nag buñ ko dóoree ñu ne ñu ne ñu ne suq ga na na suq gari ñaan kon sa xom ba am na lu nekk ca mbir ma te nag dafa tombe dafa tombe lool dóor missile fii rek bato euh, ba ba ca Liban fëx day def daa am lu muy réparé ci Amérique ah, te nijaay te nijaay xaami naa yi ñëw na ñu ngi ne de indi na ñaari bateau de guerre taxaw ni këcc ne man man fetaluma États-Unis ma missile sama yoon nekku ci bu ma ci kenn tudd bu ma ci kenn taas waaw sama rakk sama ndoom ngeen di xeexal man nag damay garder géej gi di di contrôler ndax man ni dëgg yàlla sama sécurité réew ah yitteel na ma daal ma ci kenn tudd ci sa caaya moom daal doy na waar doy na waar daal waaye bu subaa dinañ ko gën a leeral ah, ñu ngi koy dajalee nag incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw Serigne uh, Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu Serigne Mademba ñu ngi koy nuyu ñoo ngi nuyu mbooleem ñu nekk ci groupe bi rawatina sëñ Abdou Abdoulatif mu jiite groupe bi ak Serigne Moussa waa xam nga ihbitu misran moom nakira la adressé ko benn misr ci masaar ci am saar yi misran rek la ko wax misran nag maanaam waxu ko benn ci ansaar yi waxu waxu ko benn amsaar ci amsaar yi ya fa nekkoon boobu jamono misran rek la ko wax te loolu nakire la amul alif ak laam amul dara ihbitu dem leen sippi ji seen bagage yi misran ci dëkk boo xam ne dëkk bu mag la ñu gor ko mu am ay tool am ay teen ami marché ngeen dagg suuf di fa béy bu fekkee loolu bëgg ngeen ko la foofu loolu loolu ngeen di def waaye nag misran jooju jubluwuñ ci misra ga ñu jógee woon loolu moom noonu la demee waaye man lenn laay laaj géej gogu musa xaroon te mu nekk diggante Palestine ak ak ak ak ak ak misra fan la fi géej googu nekkoon ak kañ la maasaloo loolu daal maa ngi ko laaj borom xam-xam yi nga xam moo nekkoon ci diggante boobu doon géej goo xam ne mën naa wan na Firawna ak mboolem soldaar yam yoroon ñépp jeex géej googu diggante baytul muqaddas ak Égypte fan la fi géej googu nekkoon te ba léegi diggante boobu boo jaaree ci saara saara u Sinaa yi maanaam ba fi mu nekk nii waa waa Gaza dañuy dem dañuy dem Égypte ak seeni tànk dañuy gas ci biir suuf si def ay tunnel dem biir Égypte diggante mis Misra ak Palestine géej guruy googu nga xam ne ay junniy soldaar yi naa ak seeni seeni sareet ak seeni gaal seeni seeni fas ak seeni giléem ak ak ñëpp dugg nañ ci ne mes ba biit géej googu fan la nekkoon ci diggante boobu noonu te dex gi Firawna doon wax ne dex gaa ngi nii di daw ci sama ron moo di dex ak niil gi ba léegi dex ak niil gi ma nga fa géej gu réy googu nag labal firaw na ci diggante Égypte ak baytul muqaddas fan la fi nekk loolu daal bëggoon naa nit ñi ñu gën ma cee leeral géej googu fan la fi nekk ci diggante boobu noonu ndax euh, désert bi ñu réeroon ba am fa ñeent fukki at mooy désert boobu nga xam ne moom la Israël di wax ne na fa waa dem na fa waa dem gis ngeen camion yi oto yi jógee si si Égypte eh, di jaar Babul Mandab nga xaw ma di jaar di jaar Rafah Maabar Rafah xool leen carte bi da ngeen dellu ci carte Afrique ak foofu ngeen xool ko géej gu rëy gu rëyaatoo googu daal maanaam ci fan la Moussa jaare woon bay xuus géej te moom fa mu nekkoon ci ngëdëmte la diggante booba diggante booba moom Israël maanaam Palestine ak Égypte amu fa géej géej googu laa bëggoon daal ñu wax ma fan la nekkoon ndax loolu moom man ba ma jàngee géographie la mu sawara booba ma ko ma fukki at ak lu topp ba léegi maa ngi maa ngi koy laaj daal géej gi fan la nekkoon fii géej gi war na ifraaw na ak gaal yi ak lépp ba lépp ba biig géej googu fan la nekkoon fii te bax idrib bi asaakal baxra la wax mais rouge mi ngi foofu ñaari géej yooyu bi ko bi ko bi ko bi ko Égypte bëggee dajale dafa gas ab kanaal ci diggante bi waaye ak joor a nekkoon foofu waaye man géej gi maam Moussa doon diwr yatam bi daal mu xar def ñaari ŋaal mu boot ko ca moog banu Israël ñëpp jaar ca te booba ñii naan daal bari woon nañ daal ay junni daal motoon nañ ko ma ca ñaata ci fukki junni daal motoon nañ ñu jaar ca ci juróom-ñaari yoon ya jal firaw na dikk ak soldaar yaag lépp mu dugg ba ca biir géej ga masaloo ñu dee ñoom ñëpp géej gu mag Al ndax albahru moom bu ko yàlla waxee idrib bi asakal bahra foofu ñaari bahru rek lañ fi gis ci carte bi te ñaari baxaru yooyu du ci benn boo Moussa jaaru ci ci benn fan la ba fan la musaa jaaroon bi mu jógee bi mu jógee Misra ba jéggi géej googu géej googu gan géej la daal suñ Moussa Ka bëgg naa yow mi ma gën a am xam-xam ci wàllu histoire nga seetal ma géej googu fan la nekkoon amaat ñeent fukki at yi nag moom ah, man ci niñ ma jàngale ñeent fukki at yooyu bi ko Moussa gëlëmee ànd ak ñoom dafa am zahir am baatin baatin bi mooy mbooleem koo xam ne fekke woon nga njaam ak firaw naga di mag dee nga ci biir ñeent fukki at yooyu mboolem koo xam ne juddu nga ci biir ngëlëmte loolu am nga ñeent fukki at ñi àndoon ak Samwil la xawma di attaqué ji ilia kenn ku ca fekkee jamono Firawna bokk ca njaam ga newu ca maanaam daal jeunesse bi daal moo jóg patriote yi ñoo doon attaqué te patriote yooyu ñoo ñi nga xam ne xamuñu na dañ leen koy nettali mosuñoo jaar ci njaam te itam ñoo bi àll yee yem ndax ci benn désert la ñu nekk quarante ans dajewu na ku leen ne aw jaye ngi nii ñoom benn famille rek lañu te ci biir 40 yooyu nit juddu na ci ba am ñeen fukki at waaye ku ci amoon ñeen fukki at dee nga maanaam nouvelle génération ñoo attaqué ci woon Iliya loolu moom ci niñ ma jàngale man waaw noonu lañ ma jàngale man nag niñ ma jàngale naa xam euh, am na ñu wax ne loolu bokk na ci tax ngërëmte la am waaye loolu moom du sama problème li sama problème daal mooy géej googu daal bëgg naa ñu wax ma fan la dale woon ak fan la yem ak fu mu jaar ci diggante Palestine ak Égypte gaay di dem Europe ñii di dem ay Suisse ay ay ay man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay Iran Irak teere Tanzanie